di 24 euh, juillet. Mesdames, et Messieurs, ravi de vous retrouver dans votre émission matinale Go Matinale. Si vous nous suivez, bien sûr, à travers Go Dakar TV, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver tous les matins d'ailleurs. mais la rek ça su que la am teewaat fi ci euh, plateau li nga xamante mom moy euh, Go Matinale daal di waxtaan ak yéen nag ci lépp lu jëm ci actualité mais xam ngeen rubrique yo xamante ni day ci biir émission bi pour rek daal len di accompagner ngeen mëna démarrer sen journée ci nu gën a neexee plateau bi nag wéetuma ci benn yoon ndax à chaque fois rek damay toog ak ndaanaan yu mag euh, ku ci mel ni Diop waaye tamit euh, Abdel Malick euh, i tamit mu ngi sama wet bu baax a baax tous les matins Queen nag comme ni ngeen ko xamee saa su nekk def ñu ñu accompagner moom tamit ci biir li nga xamante ne ni moom mooy Go Matinal tey nag damay nuyu rek le doyen Diop ne ko ginnaaw bi nga yeewoo si jàmm ñëw jël sa taasu kafe nan nga def xanaa sante suñu borom subhanahu wa mais avant tout euh, merci euh, Mariama comme d'habitude hein, euh, pour la gentillesse hein, et pourquoi pas aussi la joliesse ça compte <laughs> euh, pour une télévision merci et bonjour à Abdel mon cher frère et ami. alors euh, encore une fois de renouveler son attachement euh, à ce Go Matinal parce que c'est un numéro qui fait euh, qui fait qu'on démarre bien la journée. Mm. c'est aussi je pense que c'est à saluer donc encore une fois je suis extrêmement satisfait content de participer à cette émission de premier plan en ce qui concerne le divertissement et la culture générale merci beaucoup bonjour Abdel Malik. oui bonjour Mariama xanaa bu job jëlee casse café man ma daal di jël kaasu xaw. daal di koy euh, ne sa furaax rek. daal di koy voilà waaw xaw bu dina ci am solo bu baaxa baax. en tout cas c'est un plaisir euh, de euh, partager le plateau comme niñ ñu koy defee saa su rek kontaan ci yow bu baax kontaan également ci Djibril donc les téléspectateurs ñu ngi leen ñaanal une très bonne journée de mercredi fas yéene ànd rek daal di leen ci li nga xam moy les informations utiles et les informations agréables daal ke bolé rek mu nekk cocktail bo xam ne koy servir servir leen ko d'une façon euh, voilà quoi donc ak le cœur ak beaucoup beaucoup beaucoup de d'empathie ndax nak ño far ñu nekk yéen ño far te boobule euh, compagnonnage dañ koy rafetlu bu baax en tout cas man dé kontaan na ci bay bëgg door poj sax bu yàggee mu door poj poj laay daal di dóor. loolu macha allah ndax compagnonnage bi. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. te yéen ay gaañ ngeen nag. Mm-hmm. da ngeen mën a pelloo. Ah, il le faut absolument. ay gaañ sax la ñu war a doon looloo ñu jikk. waaw euh, carrément nous sommes contents d'être ay gaañ. waaw démb démb la du tey. Ah, moom. Mm. loolu moom. Mm. c'est une vérité absolue. Mm, ni la télé qui vous amène de l'avant nekkee vérité. noonu la loolee <laughs> nekkee vérité. voilà loolee loolee <laughs> voilà mi ngi noonu en tout cas di ngeen am li nga xamante ni tamit euh, moom mooy euh, seen euh, météo du jour di ngeen am horoscope mais également di ngeen am li nga xamante ni moom mooy éphéméride ak Abdel mais juste avant loolu damay démarrer ak Diop ndax nag bu ngeen yeewoo ba noppi il faut ngeen informé wu xam lan moo xew ci dëkk bi mu ñëw ñoon ci lépp loo xamante ne nii rek jëm na ci wàllu actualité mais avançant tout de suite ñu dem ñëwaat. voilà mi ngi noonu xam nga moom nag damay bëgg di jàkkaarloo ñoom parce que man su ma xëyee amay information may wër naan moom la wala du moom wala nu mu fa demee noonu nan laa ko mën a comprendre automatiquement yi damay jël sama téléphone wóol ne la ay ci doyen tey xibaar yi lan ak lan la mais dafa am boo xamante ni man moom duma la bàyyi nga dem sans pour autant ma dooree ko euh, ndax nag euh, ci euh, ci ci milieu médiatique bi la mu nekk loo xamante ne ni bi mu wàccee juste dafa dafa interpeller ñu bëri dafa inter interpeller li nga xamante ne moom mooy l'opinion donc euh, muy li nga xamante ne moom mooy sorti de Pape Alé ginnaaw nag bu mu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci gouvernement bi mais également ci askan bi ci lu ñu nemmee ko euh, ana naka rek jàngatee bile tweet bi nga xamante ne génne na ko mu mel ni nag dafay dafay avertir li nga xamante ne moom mooy gouvernement bi wala leen di dànkaafu loolu lañ ko nan lañ ko ci mën a tuddee. waaw euh, merci encore une fois comme d'habitude Mariama pour la pertinence de. Questions question et ñëwee Pape Alé le nouveau directeur général de la RTS defe naa dafa def benn tweet hein, mhm. boo a ni quatre phrases mais c'est retentissant puisque boobu ba léegi nit ñaa wax mhm. alors euh, maanaam dafa gouvernement bi ñi jité, pour que nous nous gën a bàyyi xel euh, euh, ba pare aussi euh, pourquoi pas d'être sax ginnaw mhm. ci yenn promesse yi ñu defoon ci campagne électorale. bon mën naa ko tënkee de manière euh, assez ramassée xam nga nag wax yu mel nonu daawoon nañ koy dégg di ko gëna faral di dégg depuis l'avènement des 100 jours de. du mhm. président Bassir Diomaye Diakhar Faye. Ah, depuis lors, on se rend compte que nous sommes parce qu'ils se sont rendus compte que plus de 100 jours après, euh, rien n'a vraiment changé dans le quotidien du citoyen lambda, c'est-à-dire nous débrouiller débrouillés pour amener qui des amélioration, bien que euh, des pas timides ont été faits dans le domaine de, euh, pour rabaisser les prix de, de certains denrées de première nécessité. Mm-hmm. Mais nous eh, parce que le pays est trop dafa dafa dal. il y' a pas assez de boulot il am a aussi ñi ci bëri exploiter le gouvernement ne dit rien etc. Il y' a trop de problèmes alors nag moom foofu la génnee. Mhm. xam nga wax ju mel noonu Pape y a wax yàgg nañ koy dégg mais ce qui fait la particularité. Mhm. des propos de Pape Alenya, c'est moom ci camp la parce que fañ daan en général c'est le camp de l'opposition. -hmm te da tout ce qui dégg bi parce que ña waxal au lieu ñu japp ni li ngay wax euh, war na leen mëna a jëriñ war nañ cee mën def taxaw setlu mhm. mais nak c'est différent su da fa joggi ci camp je pense que les propos de Pape Alé mhm. sont à saluer parce que ce sont des propos yo xamanteni bi c'est une critique responsable et constructive mhm. parce que critique ñu bari dañ pour dénigrer pour nier dara amu fi defulen fi dara. Mm-hmm. mais su fekkee dafa jóge ci sa camp forcément dang nga koy dégg benen déggin. parce que mon il fait partie de ceux qui ont profité des nominations yi nga xamante bi tay def na polémique. Mm-hmm. après les 88 nominations. mon bok ci mais bien avant. mais tay bu xeyé xey wax li ñom Jomaay ñom Sonko ak euh, tous les membres du gouvernement ak ñi di jappalé wa PASTEF dañu wara xamni li dañ ko wara japp comme une rumeur citoyenne mm-hmm. boo xamante ni nekkatul boor politique bi la wala wala boor politique bee laa ko wax pour que parce que comme li ma doon wax mm-hmm. l'opinion doit être la boussole des hommes politiques parce que ñoom ñoo la fi teg mm. nit ñi xam nga euh, président de la république dañ naan kenn du patron am moom xam nga kan mooy patron le citoyen lambda ki taxaw ci mbedd bi di naan café ak di wut fu mu mm. naanee ataaya ak yooyu mm kooku mom moy patron parce que kooku moy décider da fiy tok wala moniko ne sa morom tok donc c'est important bu nu amee ñoo xamante dañuy relayer lolu mhm. lolu bénéfice la pour le pouvoir. parce que c'est pas donné à tous les gouvernements d'avoir ñu len di relayer lu mel non bokk na ci ñom wax nako dañu wara def taxaw setlu parce que limu wax ça mhm. se résume en trois phrases. Mhm je le lis très rapidement, mmh. quatre phrases, juste trois mois au pouvoir, et on se rend compte que les choses les plus élémentaires sont en réalité des urgences à régler. Mmh. L'unique solution est de dire la vérité au peuple et procéder à des ruptures, sinon ce sera le retour de bâton. loolu leer na. Mhm. maanaam nañu taxaw trois mois après nañu taxaw wax nit ñi deug mhm. li mo mën am li mënul woon li mënagul a am. Mhm. nit ñi tel ko xam xam nga teel xam bi dafa bax sa papa bu lay ñawal yéré tabaski nalaka bu féké day ñaw mom mëna la ka bañ a wax mais su féké du la ñawal dafa la ka wara a teel wax parce que boko jangé à la dernière minute rek tu tu l'apprends à la dernière minute rek dafay mel na coup de feu buñ la dóor donc loolu c'est important donc dama bëgg ñom ñu def ci ñangat jappé propos yi des des des critiques constructives et responsables ñu war ci def taxaw sétlu génn communiquer ak nit ñi situation bi lañ fi fekk mën nañu def lii mais mënaguñu def lii maanaam lépp rek mu nekk gouvernance participative associative ànd ak nit ñi lépp lu ñuy def nit ñi xam xam fu ñuy jëm bu ko defee ñu ñu àndandoo di dóorandoo di wàcc di di di kiiwandoo. Mhm. loolu la rek waa mais kenn waru ko jàppee beneen beneen façon. justement justement wax nga léegi wax nga léegi nekk li nga xamante ni moom mooy euh, nomination yi ndax dafa bokk ci loolu est-ce que tey jii kàddu yu mu wax tamit euh, ëmbal tuuti jëm ci wàllu polémique bu am ci nomination yu ñu seetlu. mën naa am aussi lolu bok ci li ko waxloo mais mom dafa wax rek de manière générale. Mhm. donc forcément 81 nominations je rappelle que bi Sénégal di Sénégal ba légui amul ben conseil des ministres bu mës jël à titre individuel 81 nominations nga xamni 19 rek moko téré teree 100 <laughs> xam nga lolu waaye matul. lo, lo, <laughs> matul mais touti mu mat. Mhm. mais lolu dafa nek lo xamante ni bii c'est inédit. té ñan fa teg ñep seen bokk lañ mbokk dans le sens où ñoo bokk Pastef mm. hein? mbokk dans le sens où ñenn seen mbokk deret lañu on a vu la polémique soulevée par euh, euh, xaw lan si la fille de la ministre des affaires mm, étrangères xam c'est flagrant ah ñoom dañu doon xeex loolu mënuñu wax de ba le porte-parole nous Ly de dem démentir mm-hmm. nee na Bassirou Diomaye Faye bokkul ak euh, bokkul ak Sophie Zinga Sophie Zinga mm-hmm. waaw mais mais mais nommé ministre des affaires étrangères Moussa Stimoum ci est-ce que la pression ne vient pas de là parce que les gens aussi il faut qu'ils pensent mm-hmm. hmm? le pays regorge de talents le pays regorge de ressources humaines il n'y a pas seulement que le PASTEF ils sont très braves mais nous nous nu une rupture une euh, euh, gouvernance inclusive mm-hmm. je pense que nous avons des di piocher hein, en termes religieux en termes confrériques en termes euh, régional en termes yooyu kenn du ko wax c'est tacite mais quel du ko bind mais dañ ciy agir parce que loolu mooy waral stabilité réew comprendre région bu nek nga am parce que waxuñu région bu nek nga jox ko mais région bu nek am na ay ay ay qualité yu fa nek yo xamanteni ni meun nga def un gouvernement vraiment diversifié mm-hmm. ñepp gis ci sen bop parce que c'est ça aussi la nation kenn du ko bind kenn du ko wax mais dañ koy def mu nekk euh, stabilité réew mi te loolu moo mës a yore réew mi mhm. on n'a jamais eu de kii mais bu fekkee da nga ni man ñi ma bokkal rek laay laay laay fal mais dafa mel na kon le régime bi fi bi fi jógee ñoom itam noonu lañ doon def on a vu le fameux ne da ko band donc loolu rek la loolu xam nga nit nag bu jógee foofu mhm. boo ko commencé waate defaat yu mel noonu xam nga lañu naan ku ndóobeen rey sa maam boo gisee lu ñu dal mm. parce que ñun biñ ci jógee yàggul mm-hmm. boo mm-hmm. defee lii rek réflexe ba ñuy am bokk la koo xamante ni toog na lu yàgg gis ko wala mësu koo dund mm. voilà justement Abdel euh, ci bu ñu déglu ay kàddu yoo xam te ne ko ndax nee les choses euh, les plus élémentaires en fait sont en réalité des urgences tayji ni nii à ton euh, nga mën japp ni lan lay bëgg wax fofu noonu parce que tayji jii bu ñuy jàpp Sénégal xëy na bu ñuy wax élémentaire nit ñi ñi ñëk xalaat moy dundu gi wala yenen ak yenen mhm. wala yenn yo xam sa amana amaana bàyyiwuñ ci xel mhm, très bien euh ma ñëw ci ben précision bu ndaw rek mhm. léegi kenn wax ci tweet ndaxte nag Twitter jeex na léegi X la ñuy wax. léegi est-ce que dañu changer expression boobu également au ñu ne Twitter ñu ne XT il a XT pas Alé Niang a XT pas tweeté ok donc c'est juste la petite parenthèse nu mu tudd sax bonne humeur donc. kon comme Twitter amatul. kenn waratul wax il a tweeté. il a xam nga il a il a XT. mais xam nga tweet T la commencé moo tax ñu ne tweeté mais X S la jeexee. sama sama ñoom daal ñoo changé. donc il a XT xanaa. donc il a XT ils ont il a XT voilà très bien voilà donc c'était la petite parenthèse Je ñëw ci ben euh, lo xamné C'est euh, seetlu la boo dañ ko remarqué depuis très longtemps mhm. chaque président de la république a nommé un directeur général de la RTS euh, pour pour mu nek lo xamné da koy nekkal à son image. Mhm. on l'a vu hein donc Babacar Diagne etc. etc. et nous, ça mu tudd qui kii ni Papa Alenia non Papa pas pas pas lui. Mhm. l'autre le le grand frère de Fou Malade te mu nekkoon directeur Talla voilà la, Racine Talla mm. ah, très bien kon ça veut dire que président bu ñëw rek da ngay indi benn directeur euh, pour euh, ton image et euh, en fait c'est tout simplement un tout petit peu un attaché de presse hein, moom nommé quoi donc mm-hmm. comme Jarbo. donc li nga xam ne li Pape def est-ce que est-ce que c'était pas calculé est-ce que c'était pas un truc pour préparer justement l'opinion publique par rapport à ce que xam ne ah attention là on est dans des problèmes on est dans une situation on est dans une situation de non-retour on avait promis des choses on ne peut pas les régler qu'est-ce qu'on va faire on va envoyer euh, euh, un émissaire donc le journaliste l'émissaire qui va servir de euh, un tout petit peu de parachute donc pour juste ça n'est un ballon d'essai pour voir comment les gens vont réagir justement pour nous, les Guinéens bu nous attention c'est parce que papa Léna a dit ça que voilà normalement nous la war voilà on est tous d'accord que euh, les ñu promettront nous nous donc ça veut dire que c'est juste un jeu qu'ils ont fait entre un man loolu laa donc c'est la politique là. dañ ko déggoo dañ ko dil bi ñu tag la quoi ben instant c'est c'est juste ça man noonu disait, ko gisee te noonu l'a mm-hmm. comprendre te su fait ne Non le la demee noonu la demee man mm-hmm. euh, je je valide hein, parce que c'est c'est le jeu depuis très longtemps depuis que le, le Sénégal et Sénégal mm. on utilise un directeur de la RTS pour euh, les euh, le compte du du, du président Mathieu mm. ben instant euh, ci li nga xam ne nomination yi pourquoi est-ce qu'on doit faire comme les autres C'est-à-dire, Senghor a fait ça, élargir les, euh, les postes, euh, Founé Moudjorfa, euh, région, région, arrondissement, arrondissement. On a vu ce que ça a donné. Ablawad l'a fait, on a vu ce que ça a donné. Pourquoi mhm. est-ce qu'on ne changerait pas justement Est-ce que ce n'est pas ça la rupture Est-ce que le ligne d'avenir est rupture C'est-à-dire, le ligne d'avenir, de, que des pastéfiants pour travailler, c'est peut-être ça. Non, mais dès pour le candidature à de fan. Parce que aussi, c'était. On a dit rupture d'al. Nous, tout ça. Euh, le, euh, la voix mm -hmm. importe peu. Li ah, importe si. mooy le <laughs> résultat. ah si non je te promets Hein. Ouais, mais bon c'était bon c'était quand même yoon yoon bi ñuy jël garaawul quoi. bu jëlee yoon bi nomination ministre yi gis nañu li nga xamante ne wax nañ ko ci yeneen nomination yi nga xamante ñu ngi doon ñëw donc moi, je pense que réaction bi nit ñi am c'est tout à fait des choses yoo xamante ne ni euh, mën nañ jàpp ni c'est normal. non mais je man je pense que waaw c'est juste euh, une façon de voir. Mhm. yéen yéen a déggee la nee naa la démb. Euh, les promesses ne euh, regardent que ceux qui y croient. benn li Diop nanguwul nag. voilà très bien sama plateau bi du ma bàyyi ngeen koy def di ko le lu le lu le lu ma neexul. mais bon on va rester dans l'actualité. effectivement xam nga li nga xamante ne ni également nemmeeku nañ ko mooy euh, lu jëm ci wàllub ñaxtu jëmale ko ci ñi nga xamante ne en tout cas ñoo yor cet gi ci biir réew mi wàllum nettoyage ndax nag nit bala ngaa mën a nooyi lu baax daa fekk fi environnement boo xamante ne ni bu jéggi day dalay permettre nga Manour gis na ñom nak daal nañuy fessel sen euh, naxar te it euh, ñu ngi en tout cas menacer di jël ay dogal yo xam tane ni fan yi di ñëw dinañ ko gis wa très bien euh, bala may ñew ci nettoiement bi <laughs> nga nettoyé la dan non non ben 30 secondes <laughs> parce que xam nga boo nee e, est-ce que du li moy rupture mais lolu lolu lolu ñom dañu expliciter won largement les Sénégalais lan moi donne rupture tu ne peux pas prétendre faire une rupture avec une partie de la population une partie une famille une mais non ils avaient parlé de rupture en incluant tout le monde bon bon faut merci merci en attendant <laughs> merci euh, Mm-hmm. Mm-hmm. bu nu ñëwee ci mm-hmm. ah, bu nu ñëwee ci nettoyage bi. amna solo à chacun sa compréhension du mot rupture. justement la rek le monde continue. les bu nu ñëwee ci nettoyage bi. ils ont menacé de d'entrer en tout cas en grève ou en mouvement d'humeur euh, à partir de tey loolu en tout cas euh, quoi qu'il en soit ça veut dire ñu def ka ñu bañ ko def ça veut dire qu'il y a des problèmes. Mm. té fofu nak dafa yag am ay problèmes. Mm. Euh, té li tax mu yag am problème. Euh, c'est dommage, mais nous sommes, nous vivons dans un monde où mm-hmm. les plus utiles mm-hmm. à la société mm-hmm. sont le plus souvent les plus négligés par cette même société. boo jëlee par exemple santé. éducation agriculture ah te agriculture dañuy mais agriculture c'est napp mooy. mooy mooy pêche c'est napp

kañ lañ koy mel avec ce système là. Mm. donc maanaam xola santé tay buñ fi togué tay lan moo tax la mm. santé avant tout. Mm-hmm. éducation tay ji buñu amul won xam-xam buñu nu ak doomu adama yi bo war leen mën jëriñ wala bok sax ñu yaakar ni li ñuy wax war na mën jëriñ ñenn ci ñom duñ fi toog. Mm-hmm. agriculture tay ji buñu lekul won woon dara. Mm. naanuñu dara est-ce que dañ fi toog tay lek bañé waaw <laughs> xolal ma ñooñu mais parallèlement da ngay gis ay musiciens ay joueur de football mhm. ay joueur de basket mhm. divertissement à def amna solo lol, mais ça n'a rien à voir avec yii ma njëkk wax par exemple mm. y a pas photo mm. il faut oser dire la vérité pourtant ñooñu ci c'est des milliardaires amna ñu ci souffrir mais barewul mm. mais lolu système la bo xamanteni société bi mo mo doxale tu vois ñi nga xamanteni bi soit dañuy tiaxat wala ñu nekk ci digënté dëgg ak tiaxat mm-hmm. ñom lañuy gëna jox gëdd gën leen jox tieslay que ñi nga xamante ni bii fa nekk sëgg buñu ñu siggi woon mbaar mi reus donc c'est toute la société té lool du Sénégal rek ah. Mm-hmm. c'est l'afrique c'est le monde. c'est toute la société qui doit procéder gis nga rupture bi ñu wax Sénégal. Mm-hmm. rupture au plan systémique dafa wara intervenir dans le monde entier man c'est ma conviction profonde. Aïcha Abdel est-ce que du euh, si tubaab bi rek euh, la la la am solo c'est-à-dire ñom ñoo jox au moins tuuti gëdd li nga xamne moy secteur agriculture comme ni nga ko waxee def naa ni euh, ñàkkal solo boobu la. Mm. muy éducation muy santé muy agriculture def naa ne ci pays sous-développé lañ ko sétlu lu tax ñu seetlu ci sous pays sous-développé parce que c'est voulu parce que tout simplement nous euh, euh, les institutions de Bretton Woods politique en fait euh, une partie importante du budget de ko parce que non non non il ne faut pas faire ça il faut faire autre chose pour dépendance pour ñu en fait ñun ñoo def politique politique de santé politique politique d'éducation politique d'agriculture bu am bu am euh, cëslaay bu am euh, mujjantal bu baax mais malheureusement foofu lañ tollu, donc on nous dicter suñu fuñuy xolé né nañ ko ëmb sa sànqal euh, xaw ma voilà mu ngi non kon nak ñom ñoo ñuy tegal li nga xamné rek mom moy yoon yi ñuy war jaar malheureusement euh, c'est un constat bo xamné ne c'est des pays tout sous-développés ñëpp ñoo ci nekk ci même même cas bobu ci même atté bobu lé bobu sûrement mën mm. nañ ci gëna mëna mën mais tay jii né tay bu ñu wé ci li nga xamante ne moom mooy euh, grève bi tax ñom ñu fas ko dem dem euh déjà li may peut-être signifier moy li nga xamante ne ñun amuñu culture bi déjà ñun citoyen lambda buy dox rek mhm. euh, la bu wax implication bi nga ñun euh, lambda war nañ ko am ci envers ñi tamit di liggéey. ci liggéey très bien non euh, nu mu tudd sax dañoo am benn benn benn benn cat bu nekk ci ñun esprit boo très longtemps mais dañul. muy mm. Euh, c'est-à-dire lu bokul ci yow rek pour yow mm. sa yoon newu ca mbedd buur mbedd bour ba finalement mu nek lo xam ku nek di négliger ken du saja wax ken bul def ndaxte bo waxee ñu la la yow lu ci sa yoon ba finalement mu jur li nga xam mom la jur mm-hmm. euh c'est vrai que secteur nettoiement

c'est ça fait trop te hein, parce que la preuve je pense que ci euh, tabaski bi juste bu bu gis nañu li jot na xew ci yenn plage yi. nañuy ray sen xarit utiliser utiliser ba paré ko ci si si pourtant jour de. tu es tok ba ay bor midi nga dégg auto euh, auto yi ñëw. kala mm-hmm. di jël. Mm-hmm. li nga kon ça veut dire que euh, ils sont des personnes yo xamné ils sont nécessaire mhm. vraiment té euh, bu leen amul dañ leen di wëri kon nak il faut ñu fël la leen il faut mhm. ñu jox leen seen gëdd bu baax a baax a baax en tout cas am na solo xam naa ne nag euh, seen grève bi peut-être bah ñoom itam ils ont été très intelligents parce que bu mhm. ñu xaaree ba nawet ñu ni dañuy grève ku ne xam na ni nawet mbalit pour mu tas pour mu wal rogalaan waaw xam nga yàq mbedd yàq dugg ci biir kër yi waaw ñoom itam ils ont bien calculé le timing ah. xëy na aussi yàgg nañ di di bëgg euh, mhm. waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen ay njiit mhm. pour ñu ut solution waaw ah, mais dafa mel na maître yi rek dañuy xaar ba examen yi ñëw ñu ne dañuy grève eh ñoom itam bii mooy seen moment bii rek la ñu ah, mën a wanee seen effectivement en tout cas xam naa ni bu ñu jógee ci seen grève bii nii euh, ngir euh, seen diggante ak autorité yi dinañ defaat beneen grève yoo ak citoyen sénégalais lambda yi nga xamante ne ni am nañ benn incivisme côté boobu noonu hmm. nga xam ne jàppalewuñ bu baax a baax ay ci ba tey dañuy des ci actualité ndax nag xam ngeen ni tey moom man dama leen naan euh, mercredi bandeau rouge la xanaa ndax yi tamit am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi nekk ci wàllu transport même bu dekkee ni am na ñu koy euh, contexte quelque part mais ba tey rek ci la ñu des ñoom it daal nañu fësal seen euh, naqar en tout cas ñu ngi ñaxtu muy euh, Diop euh, ñi ñu woowee Jakarta Man. waaw Jakarta Man bon bu dee pluriel Jakarta Men. bu dee dégg naa. Jakarta Woman nag. Jakarta Woman defe naa am na ah, barewul nag. mais am na hmm, gisaguma ko gisaguma ko de. ah Jakarta Woman de. am na. mais mais mais ja ja Jakarta. xam nga mhm. léegi bokk na ci ci ci transport Sénégal. parce que bu njëkk ba Kaolack lañ ko daan dégg ak yenn région yi. Hmm. am na Kaolack am na léeg-léeg nga dégg kër biir hmm. Dakar affaire yooyu mais léegi ba banlieue foo mën a. Kër Massar ak Yëmbal ak tout ñu ngi fa. Hmm. donc léegi dañu bokk ci décor transport Sénégal te nag am na lu ñuy jëriñ loo xamante ni bii transport classique mënu koo jëriñ parce que tey ji am na ay urgence yooyu am c'est vrai que bu dee malade foog nga jël taxi euh, wala leneen. mais amna ay urgence yo am yo xamanteni bi man mi amna invité ba tay mu bàyyi fo otom jël Jakarta parce que danaan suma nek 11h danaan ma naa bàyyi ba 9h45 wala 10h ma jël Jakarta. parce que ñom dañuy faufiler dara du len téye. Mm. donc amna na ñuy njëriñ léegi nag dañ leen wara régulariser ñom itam ils ont mm. raison mais ñu bëgg leen ñu euh, euh àll ba ñu bàyyi. en fait loolu seen esprit seen xalaatu bopp la dé wa mais xam nga liguey mënut doon force. Mhm. parce que même bo doon liguey di fayee ay millions sax sa bu la nexé boo xey nga démissioner mais donc donc liguey warut a doon force. liguey dafa wara nek lo xamanteni bi yow da nga ciy ànd. en plaisir comprendre nga yow yow yow yow au lieu ngay forcer euh, les jeunes sénégalais pour ñu dem bay. Mhm. da ngay def ci condition mbay lo xamanteni ñom ñokay ñoo dégg comme ni ñuy jëlee gaal di dem mhm. Espagne di taylé sen bakan té ñi ci ëpp ci tolé ya la ñuy mujjee. bu ñu déggoon lu genn walu lolu fi mais dañuy demal seen bopp bay jakarta yi kenn du leen wo mais du yaa leen di forcer pour ñu dem ci mbay mi yaay def ci mbay bi condition yoo xamante ni bi par exemple bo ne woon ku bay am deux mille mais je suis sûr que ñu baree baree tu vas refuser du monde mais nak bo nee gopp ak ileer nga bëgg sëgg suba ba ngoon doo am sax euh, sa waay loolu. est-ce que condition bay yi tey ñu leen bëgg a yóbbu noonu est-ce que mat na. non xam nga mbay mi moom wax naa ko léegi parent pauvre la boo suñu pauvreté mhm. parce que mana mana mana économie am socle day am base ñun économie dafa amul base dañu tëb bëgg industrialiser c'est loolu mu industrialisation day day matière première mhm. matière première mais suñu suñu des ay ay nañ ci ay boisson mënoon nañ ci des ay garab mhm. élevage poil yek, hein, karaw karaw sabo mais yooyu yëpp ay bouton lay doon ak yeneen ak yeneen mm. saabu sax yenn saay dañ ko ciy defar graisse yeeg yooyu yëpp maanaam amul dara looy sànni der bi ba ca amul dara looy sànni ci mala mm. amul dara looy sànni ci mbay bu fekkee nit jëfandikoo wu ko mm-hmm. euh, euh, bàyyi ma da koy jëfandikoo comme ngooñ wala book même nga sa waat ko ci mbay bi pour déwén mu nekk engrais wala qu'est-ce qui ay cent milliards ay 200 milliards. Mhm. yóbbuwul réew kanam dangay jël jël mille wala mille milliards. Mhm. def ka ci mbay mi ku xamoon mbay daaw. Mhm. xam ka ren xam ni yàlla ak yaali la. nga daal di ñëw dugg ci mbay mi. di tedd loolu mooy tax nit ñi dem ci mbay mi mais du forcer. Quelqu'un mënu kenn mënul forcer kenn mu bay. yaa wax qu'est-ce qui nous empêche euh, d'investir sur l'agriculture justement wax c'est les institutions de Bretton Woods. Oh, les institutions. malheureusement c'est ça. <laughs> Eh, tu ah, que on a hein? on a les terres. on a du soleil. on a tout on n'a pas l'argent parce que l'argent vient de là-bas. je le comme ni ko kooku waxe balaa jër boobu xam nu mu tudd waaye ndeysaan ku nekk démarré ah, sani sani l'argent vient de la volonté <laughs> mm, mm, mm, en tout hmm. am na solo mhm. donc euh, aussi jàkkaartamaan lu ñu ci mën a wax rek tamit euh, même bu fekkee ni euh, mhm. d'accord ñu ci loolu noonu war nañ mën a aussi autorité yi wax mhm. dëgg ñu taxaw ci situation parce que nag luñ ci mën a wax mu ngi jur ay dégâts fii ci réew mi. fii ci biir da ngay gis diggante telle zone fii telle am fii rek embouteillage day am. Ah. chogu Jakarta am. on a été ah, témoin parce qu'ils n'ont pas été régularisés xam nga boo leen régularisé. ci ngay def yooyu yëpp ñu am papier yoo xamante ni nga wax leen fu ñu war a daw. fu ñu war a daw ban vitesse la ñu war a daw yooyu Il xam nga yaa ngi wax sax yaa nga wax nga ñaari wax nee nga hmm. euh, boo amee urgence da ngay catastrophe en fait c'est ça en fait comprendre que euh, parce que mhm. policiers yi ay euh, ay la fait exprès pour décourager comme ça ñu euh, comprendre ah mais décourager wu par contre. Hmm. parce que la tracasserie policière ci jakarta yi rek. bu hmm. ah, ça touche tous les automobilistes et tout ce qui s'affairent autour de la route. Mhm. en tout cas mi ngi noonu mu nekkoon li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, le mot de l'actu day ñëwaat tous les matins ci li nga xamante ne moom mooy euh, go matinal ndax nag day am solo bu ngeen yeew ba noppi ah euh, nekk ci seen bopp laataa ngeen di dugg jublu ci seen ay activités au cours de de la journée ngeen dem xool li nga xamante ne ni en tout cas moo xew seen biir réew ba ci sax biti réew bi yenn saay dañ leen di andi rek lépp lu tënku ci wàllu actualité doyen merci ci analyse yi ci intervention bi comme saa su nekk d'ailleurs ni ñu koy defee. Ah, merci pour les questions extrêmement importantes et pour les contributions aussi de Abdel même si ça may pas. ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de me relancer quand mm. merci merci beaucoup et excellente journée à vous merci à vous. merci beaucoup ayca Queen Latifah daf ñuy rejoindre ci plateau bi xam ngeen nak mom bu ngeen ko namé rek bu ñëwee ngeen kontaan macha allah borom tani borom pétaw xam bu tay bu toogee na ko lacté ndax juroom ñaari pétaw lay seetee wala 21 pétaw donc légui euh, légui seen émission go matinal bariwul ndax nag doyen Diop moo toogoon fii léegi rek ñu def li nga xamante ni moom mooy euh, le mot de l'actu waxtaanee yenn ci lu a fës en tout cas ci actualité réew mi waxtaanee nañ fi nag lu jëm ci tuuti kii di Pape Alé Niang wax ak gouvernement bi mais également adresse ko ak population bi mais également li nga xamante ni moom lañ ñu ci nemmeeku bokk na ci doxum ñaxtu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk wàll en tout cas lépp lu jëm ci wàllub nettoiement ñu ngi nag annoncé grève boo xam ne dinañ ko amal i tamit li nga xamante ne rek moom mooy euh, jakartamaan yi daal dinañu yëglu nag nag ñoom itamit dañoo fas yéene amal grève ci réew mi ginaaw bi nga xamee ne nag nee nañu fas yéene wuñu benn yoon dem euh, bay ji loolu daal lañ fi jot a waxtaanee ci seen biir émission go matinal donc Abdel gis nga bi nga xamante ne ni moom le doyen intervenir lu am solo léegi léegi mais nag xam nga. très rapidement dañuy ñëw ma ñëw ak yéen ci météo éphéméride wante fa mu nuyu daanaan bi.

Bonjour. Bonjour Abdel. Voilà, bonjour. Ça va Abdel Ouais, cool. Tu vas Comme bien Comme jot ak sa ak ak bi distance. parce que ba pare boole dafa xaw lox dafa xaw gàtt. Hello, hello, hello. <laughs> Yaa ngi cool. Ouais, I'm cool, man. I'm cool. Nice, yaa ngi en forme. Yaa ngi chill, maa ngi chill, waay. Danga ma faale ah. Si si je Man maay sa fans. Man yaay fans numéro 1. Abdel mooy numéro 2. Ah, ah. Maa yor fans club bi.

Nous suivons cette chaîne digitale Go TV nous ngi leen di nuyu di am comme euh, tous les matins jàkkaarloo yéen ci seen émission Go Matinal te comme ñu koy defee saa su nekk man ak sama xarit ak sama caabiñ sama. Mhm. sama caabiñ bi lan la sax sama sama sama voyant bi. Mhm. <laughs> bu góor bi borom tani. borom ah, tani bi waaw tani yi koy yàq moom. tani yi moom bu bu ko bokk kenn. non non yaa moom tani. non yow yaa ah. bi mooy bëkk néeg. prend rek prend tout waaw ba tey defee rek man su ma su ma ñëwee ci mhm. français bi moom mu ñëw ci olof. man fu ma defee nii rek pirloog moom. nekk bëkk néeg nag dafa neex parce que xam nga yu bëri yaa koy am. ah parce que gars yi dañuy jéem a ah. corrompre pour mën a egg ci sëriñ bu mag bi dama bëgg nekk bëgg nekk neex na. Ah, bàyyi ko xel de lu ñu la jox rek. xamal ni am na lu ñu ci bi nga am lu ñu ci cof. li ci des yëpp mu ngi kon kon mbokk téléspectateur yéen a déggandoo loolu te bis tuuti ma ñëw ak yéen ci seen euh, horoscope du jour ànd seek euh, Abdel Malick Cissé. ma yaakaar ne da nga daan bis kanam léegi muy. <laughs> damay yële <laughs> Abdel Abdel Abdel fu mu nekk nii. boo ko yële bee rek xaalis wadd. ayca <laughs> mi ngi noonu te dégg naa léegi par cinquante ngay laal. laala doo soxla xeeb ko cinquante loolu lay def wallaay nii lañ may def buñ ma sekkee rek ma am problème mais yàlla baax na <laughs> Aïcha yéen nag dañuy continuer ak yéen dem ak yéen nag ci li nga xamante ne moom mooy euh, météo bi ñu def benn débrief ñëwaat ci plateau bi voilà mi ngi noonu tey nag euh, météo bi du ñu def lu dul fàttali leen li nga xamante ni rek moom la ANACIM annoncé woon ni ki mardi ba tey mardi jàpp mercredi nag mu ngi doon xamle ay euh, pluie yu bëri yu ànd ak ay orage maanaam ay dënnu ñu ngi koy xaar fii ci biir euh, réew mi ci yenn gox-goxaat yi jot nañu fa nemmeeku ay taw ni ci talaata bi tey tamit rek dañuy continuer reste vigilant par rapport ak li nga xamante ni moom la prévision annoncé. ANACIM annoncé woon ni kii euh, démb euh, ba noppi ndax nag dell dañu nekk ci nawet te xam nga bu ñu mhm. nekkee ci nawet moom day am solo lool ñu xam tolluwaayu euh, asamaan bi fan la mbir yi dem pour ñi nga xamante ne ni dañuy bouger lu bëri. Euh, ñu mën a xaar ni rek euh, ñu rester sur nos gardes ndax taw yi noppeegul mhm. donc euh, annoncé woon nañ diggante mardi jàpp mercredi ay forte pluie orageux waa ba jeudi itam maanaam xaaj semaine bi yëpp presque exact voilà bu ñu jógee ci loolu sax ba ci week-end bi tamit mën nañ am yeneen prévision yoo xamante ne ni dina am donc mu nekk loo xam ne moom la ñu nemmeeku mais mhm. tàngaay bi itamit waxoon nañ ci fan yëpp tàng na mais tey ak euh, démb constaté nañ une baisse benn baisse bu mhm. légère rek par rapport ak taw yi nga xamante ne ni mhm. itamit euh, wàcc na fi ci biir euh, réew tout à fait euh, xam nga bu niir yi ñëwee xaw a naaj bi. Mhm. bu ko da l'impression impression un tout petit peu de fraîcheur. Mhm. waaye annonciatrice. <laughs> li nga rek li excès mhm. comme donc des par intermittence ba nga généraliser ci dans le sud jëm euh, progresser vers Dakar avec euh, mon dem sax ba ci kaw ba mhm. ça veut dire que voilà donc on s'attend à des jours. Euh, pluvieux euh, mais car macha allah yàlla na jur jàmm rek loolu la ñuy ñaan. nekk ndox bu sedd sedd guy su ñun bu bañ def ay dégâts yu bëri ndax nag xam euh, jafe-jafe nawet moom ñëpp xam nañ ko loo jël ses précautions mënta ñàkk yenn yi ndax dañ koy gis sax ci yenn réew yenn taw yi bu ñëwee def dégâts donc ñu yàlla mu yegg si dañuy ñaan yàlla rek ñu am nawetu jàmm ak mhm. salaam ndox bu sedd guy yi tamit bu yem ci suñu ay loxo ay cheikh bu ko defee ba tey nag dañuy continuer ak yéen xam ngeen ni bu ma noppee ci météo bi damay dem jëli li nga xamante ne moom mooy peu ñu waxtane mbeugël waxtane xaliss waxtane relation ah relation nak relation yu bari nañ amna relation fraternelle ak yeneen ak yeneen mom nak amna ci bu ko gëna soxal xamna dina ci ñëw ak yéen léegi léegi kii Latifa Mariama Mariama yaa def noonu ci mbay. Mhm. yaa bëgg a jaxase askan maa ngi woon boo yéegee dinaa laajte 7 euh, peta wala 21 wala yow ndox ngay seetee. non non xool xoolati gerte. <laughs> Hmm. est-ce que lu seetee est-ce que lu seetee ak <laughs> café café waaw <laughs> café ah, bi koy def da naan café gi mu jeex ba mu des taat bi hmm. te la ñuy seetee est-ce ma xolti gerte gi na yow bàyyi ma waaw ma sama xolti gerte gi rek ba pare hmm. boole ci yow man Mariama man mënuma laa comprendre yow da nga bëgg a jël yëpp sëf ma ko yow foo bàyyi Abdel man fu ma defee ni def ni mais bëgg nekk mais moi je bëgg nekk non non ba pare boole ci waxuma man li li li li kii bi wax rek laa wax ñu ko andil voilà bàyyi leen ci kii bi wax nag yaa ko wax loolu kooku noonu ñu am xam-xam yi nag en général dañuy nëbbatu te moom waaw noonu la noonu la noonu la dafay nëbbatu bu ñu fi yaakaar ne maa ngi xaalis te yoruma ak xam-xam bi li surtout yéen ko def yaa ngi xaalis yaa ngi ah, xam-xam waaw baax na yàlla baax na yàlla yàlla yàlla xeb dool yi yàlla bëri na sutura hmm, amiin yàlla amiin waay amiin amiin voilà de téléspectateurs c'est euh, euh, un horoscope euh, du jour horoscope du 24 juillet 2024 comme nous fait, ça Abdel Malik, mhm. Abdel on va commencer par les béliers comme toujours bélier. Mhm. les astres sont dans votre cas dans votre camp. Mhm. aujourd'hui aujourd'hui exprimez votre affection sans retenue maanaam ah, biddéew yeeg weer weeg lepp ñu ngi and ak yeen daal di far ak yeen kon nak li war rek moom mooy ngeen wane seen mbeugël té bu len ci ah, dem ak xel ñaar dem nañ ci à 100 rek. toro en couple <laughs> même le quotidien peut se révéler riche en moments appréciés Mm -hmm pour les célibataires waaw yenn say yi yoonu tool xam nga da ngay dem ba min ko ba yenn say sax yoonu tol da ngay gëmm di jaar ci yoonu tol waye seen yoonu tol yéen tay bésu tay bi euh dina am ay euh, mbettel yu neex neex yo xam dina leen ci fekk Ni ñëw ci jemon en solo vous chérissez votre liberté et appréciez l'éphémère en ce moment mhm. waaw da nga mais attention à ne pas sembler trop

peuvent aussi unir les partenaires. exactement exactement. Mhm. dëgg la euh, euh, yenn saay jafe-jafe dina am mais ci jafe-jafe yenn saay ci ngay une a Tu ki la bëgg ki la bañ. ki la mhm. ki la le ak ki la nawul te non rek moo gën sa def naa ne nattu euh, ci ngay mën a xamee ñi la bëgg dëggantaan. Mhm. voilà c'est ça. Lion. le lion rouge a rugi. <laughs> pour les amoureux. votre ego <laughs> pour les amoureux votre ego a une place importante vis-à-vis -vis de votre relation en solo. Mhm. waaw seen euh, bopp moo leen sama bopp ma la gënal sax du bañ naa la loolu la olof di wax donc mhm. euh, seen bopp moo leen gënal ah, naam di ngeen bëgg keneen naam di ngeen bëgg yaatal ba mu yaatu waaye nag euh, da ngeen di toppatoo seen bopp balaa ngeen toppatoo keneen vierge en couple c'est le moment de redécouvrir à deux les plaisirs simples de la routine mhm. waaw xam nga mm, maanaam ab couple bu ñu nekkee eh, ja mm, xëy suba ngon ba ngon mën ngeen def les même chose waaye yenn saa même chose yooyu sax day indi mbégte ndaxte nag eh, àndandoo yeewandoo par exemple demandoo ci waañ ba defandoo café affaire yooyu yu saw yooyu rek. Mhm. day dundal bu baax a baax xol te dundal voilà non non à deux même bu dee bale sax ngeen defandoo ko à deux. day day mhm. non day dundal. Mhm. day dundal bu baax couple. balance balance. balance c'est qui c'est qui <laughs> c'est qui la balance. c'est la plus belle. Hein. Une balance à deux, vous avez besoin d'être au cœur de l'attention, voire d'être apprécié. Quand on célibataire. Mm. <laughs> Nous savez wax avoir des bon li li ngeen euh, maanaam balance li ngeen euh, yittewoo li ngeen aajowoo rek mooy ñu leen di bàyyi xel saa su ne te di leen euh, tamit di leen bëgg loolu ndef rek bëgg ngeen nit ñi daal di koy bëggee bu baax daal di koy bëgg bu baax a baax ñi nga xam ne nag célibataire lañu li nga xam ne moom mooy li war mooy ngeen bàyyi xel ci li xew ci bëccëg bi ndaxte nag li xew mën na leen dural loo xam ne mbetteel gu nekk ci seen dundin. c'est ça escorpion. seen escorpion merci escorpion. Célibataire, une rencontre est peu probable aujourd'hui, mais vous adorez les belles choses. waaw daje mën nañ am mën nañ am mën na am tey mais mën na ñàkk tey ndaxte nag daje moom xam nga rek mbiru destin la ah donc mënoo xëy suba ne tey moom dinaa daje ku ñuul wala ku gàtt yàlla rek moo koy dogal kon nag mu ngi noonu bu ñëwee rek nga xam ne ñëw na en tout cas li nga xam ne li ngeen bëgg moom moom mooy lu neex di leen arrivé saa su ne te loolu mën na am tamit tey ci journée bi nga xam ne mooy journée bi ñu nekk tey ci bésu mercredi bi Sagittaire. En solo, il semblerait que l'amour soit quelque peu capricieux aujourd'hui. Cette phase n'est que temporaire. je waaw mbëggeel euh, dafa xaw a saay saay xam nga euh, mbiru mbëggeel moo demee je sax dafay dafay dafay daf lay bett nee nañ day bett euh, ku am comme ni ko Alioune Mbaye ndeer wooyee euh, juróom-ñaari at ba fukki euh, juróom-ñaar juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar ah mm. donc de 7 à 77 ans donc daal dalay bett daal mbir bu mbëggeel daal moo nekk lu day waar mm-hmm. waaye nag mbetteel googu sax dafay nekk bon pour un temps bu gàtt rek mm. ndaxte nag bu yàggee di ngeen am bu baax ay firnde yu leer ne maanaam affaire yi dafa dafa dafa tegee bu baax dafa tegu ci carte gu leer nañ Capricorne Célibataire, vous vous précipitez tête baissée. Mm -hmm. le pire comme le meilleur pourrait survenir. Mhm. waaw waaw boo xàccee dóor moom doo xam ci li ngay dal de ah, boo mhm. xàccee rek dóor. Mhm. doo xam ci li ngay dal yenn saa yi nga dal ci ëkk. yenn saa yi nag nga dal ci loo xam ne dafa nooy nepp de. kon nag xàcc dóor rek mel noonu comme comme hasard quoi donc puluf la quoi puluf puluf. Mm. puluf nii la ah puluf. voilà ñu ñëw ci verso. verso nag su ma ko déggee sama xel dem suñu nijaay ñu ngi koy souhaiter un bon rétablissement. yàlla mhm. Malick Touré. ñu ne euh, verso à deux si des tensions surgissent considérez-les comme un signe

Passons, passons les poissons. Poissons, Passons les poissons. Qu'on dire, non Poisson. Ah, poisson. Ah, parce que je vais prendre tout mon temps. Hmm. poissons mhm. Pour les amoureux, un comportement altruiste et des compliments sincères montreront à votre partenaire son importance à vos yeux. Mhm, Waouh. non l'autre, pour les célibataires mënuma ko firi. firil <laughs> le non bàyyi comment mu firi. moom day wax ba mu pour les célibataires. <laughs> <laughs> yaa la ci la am c'est que moom. xam nga lan moo ci am daa mën a xaawi sutura nit du <laughs> xam nga lan moo ci am solo mooy <laughs> maanaam boo nekk euh, nit ah bu fekkee ne da ngeen nekk. Eh, bok li ngeen di def manam bok liggey wala ngeen eh, bok mbeugel manam nek ñaar ñuy bëggante li war rek moy sa su ne nit ki bu defé effort dang ko naan def nga effort bu manam eh, maanaam rek nga ko ja ma jaraw lak mhm. ah, dal di koy encourager encouragement waaw goor ni tax lu bu baax ba mhm. donc bu len bu len sofantal par exemple comme nima ko waxe sank ku xey defal len ndékki tege len mhm. ko ci kaw table ah, ne ko merci beaucoup wala nga jox ko ben fleur bu def dañu la sa nga def rek voilà waaw dañ koy soofantal gars yi bëri dañuy soofantal mhm, yooyu waaw mhm. ah, même jigéen ñi sax yenn saa dañuy soofantal effort ah, ko seen borom kër dem ba ñëw waaw ah, Abdel xëy defal petit déjeuner ñu ne ko ah boo ko defee ne bala nga ko def ci déwén voilà mu ngi noonu alors que effort boobu c'est important mhm. voilà voilà Abdel kontaan naa ni man ni nga koy ni nga koy faram fàccee surtout bo yexé ci poisson di jël sa temps loolu daf may neex après naa la ñun gis nañ ni ngay waxé poisson bi la ni mi waxé poisson bi bokkul la ni mi waxé yeneen yeneen yeneen signe waaw naa la bindal chèque bi ah, dama toog di yaakaar ki yëngatu tout ça diggee boo xam ne ça fait ça fait maintenant ça fait 2 ans léegi hein ni ngay waxé poisson bi bokkul ni ngay waxé non non parce que poisson man je non man poisson je prends mon temps ma ben ben voilà parce que nek tamit allez bon c'est tout euh, chers téléspectateurs c'est un horoscope du jour et je vous donne rendez-vous demain Inch'Allah, à la même heure avec euh, sama Abdel mm-hmm. voilà kaw am da loko kenn dara ko rapor, rapport mu lay rapor. rapport xuy ma yaay sama secrétaire bis ni ah di di man secrétaire bu dul jot duma ci dugg man kay damay jot comme ñepp ngeen may jox bu ngeen ko mënul na ngeen gérer sen ñaar sen ay mbir ñaar seen non di nga jot di nga jot di nga jot di nga wa kon commission oh. ah komision. commission ah kon oh. ah, baxna hmm. merci beaucoup en tout cas pour ce duo et cette belle présentation ci li nga xamanteni mom moy horoscope ndax nak da fay am solo ku nekk signe bi nga bok heure bo xeye nga xam naka nga toge nan nga wara toge bu baaxu rek nga defaraat ko bu xawé looy metti nga muñ ndax nag bés bu nekk ak li cay xew merci beaucoup en tout cas on poursuit nag ma daal di continuer dem ak Abdel ndax xam nga ñoom ñaar ay acolyte lañu su ma jógee ci euh, ndey rek mhm. damay dem ci euh, Abdel su ma jógee ci Queen nag damay dem ci King bi ñoom ñaar mhm. ndax dañuy pelloo saa su nekk Aïcha tey lan lañu am comme éphéméride bu noppee rek nga ñëw ak léegi léegi acha kon nak euh, ñu daal di ci def rek li nga xam mo moom moo xew ci taarix ci euh, bésu 24 juillet ci taarixu euh, Sénégal sax lañuy ñuy daal di des mhm. ci taarixu Sénégal dañuy daal di li nga xam moy les informations ñu tambalé ko ci 1914 xam nga bo déggee 14 da lay jox la guerre 14 18 voilà 14 18 <laughs> la le tambalé 1914 nak ca ca Dakar la ci xew neexuloon dara ndax nak mhm. ben épidémie mo amone hein épidémie de peste

Le euh, 24 juillet 1914 arrêté déclarant contaminé de peste le port et la ville de Dakar port et ville bi mais voilà mm. toute la population est contaminée l'épidémie qui avait débuté en avril a fait plus d'un millier de morts dont la plupart à Yoff waaw bah, mhm. foofu le ëpp ñoo xam euh, faatu nañ fa mm. donc euh, plus de 1600 cases en paille et baraques en bois du plateau temps yooyu plateaux et plateau ay mhm. baraques ñoo fa nekkoon mhm. dëkkuwaay surtout voilà donc euh, les les les cases et les baraques sont détruites euh, par l'administration pour juguler la maladie ñu daal di koy taal ba mu ne jëppeet defe mm. euh, ci image bi gis ngeen euh, fi nga xam ne foofu la nit ñi taxaw di seet sénégalais nag dafa yàgg a mën a seetaan ñu <laughs> ah, ñu doon taal image avec la fumée et tout non daf leen di jaaxal seetaan nag dafa baaxul yéen a ngi fàttaliku Sonacos seetaan moo yóbbu ñu bëri. Mhm. ndax ndax dañ ko di xool lan moo fa xew. Mhm. finalement amoon ñàkk ba yóbbu ñu bëree bëri. Mhm. nag mm. boo leen gisee fii tàkk bu mm. dem di seetaan yi tamit ëpp na ñu date euh, dañ ko ba baaxul 24 24 euh, juillet 1957 cette mm-hmm. fois-ci hein jóge 1914 ñu dem 1957 donc euh, Saint-Louis xam nga Saint-Louis mo la capitale de l'AOF mm-hmm. Mm-hmm. Afrique occidentale française nekkoon capitale du Sénégal mais également Mauritanie hein ci jamono ju Mauritanie ci la bokkoon donc ci li nga xamné Saint-Louis moo nekkoon boobu les capitale donc 24 juillet 1957 euh, Saint-Louis n'est plus la capitale de la Mauritanie ci vous voulez, nous avons arrêté euh, Saint-Louis comme capitale daal di koy toxal ba Nouakchott mm-hmm. Nouakchott daal di donc nekk euh, la capitale de la Mauritanie Saint-Louis capitale de la colonie du Sénégal était aussi la capitale du territoire français de la Mauritanie Hein? donc ñu tàmbali woon ko ci 1er janvier 1921 mm-hmm. mu daal di ce 24 juillet 1957 mm-hmm. bien à la dernière date bi nga xam ne dañ koy jël ñu wax ci euh, madame réfugié les mhm. ba Baye Pen woyee na ko fi mhm. daw laaxu réfugié très belle chanson aussi donc xam euh, ngeen woy hein? voilà non très belle chanson mhm. allez promulgation donc de la oh, loi portant statut des réfugiés euh, il faut savoir que dès 1962, le Sénégal avait adhéré à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève. Euh, finalement donc dañ promulgué le 24 juillet. Mhm. mais nous signé à Genève n'avons que euh, signature à officielle Officiel quatre jours plus tard le 28 juillet non 4 plutôt. quatre ans plus tard, parce que 28 mhm. juillet 1952 on a signé donc et entré en vigueur le 21 avril 1954 Madame promulgation de la loi la ñu tàmbalee. xam nga mhm. foofu mhm. loi même assemblée nationale promulgue la loi après euh, euh, def ay euh, débat après soo ko signé donc mu ngi noonu. Mhm. fa en tout cas les nga qui ñu ngi leen di masaw bu baax ndaxte nag ku sañoon wax dëgg fa yàlla doo dem di wàlli yi di dem dëkku jàmbur boo jógee sa dëkk rek ça veut mhm. dire am na problème yaay quelque chose qui se passe mhm. te daw laako bëri nañ ci àdduna bi mhm. maa ngi xalaat palestiniens yi maa ngi xalaat ñeneen également ñoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi euh, mënatuñu même sax au Sénégal hein, des Casamance yi nga xam ne ñemetuñ dem seen village parce qu'il y avait euh, des problèmes on na ñuy mhm. dellu si par ndànk-ndànk mais nag euh, la Gambie tout près bu ñu xawee am situation politique tendue gis nañu vrai dañuy daw dañuy daw jéggi frontière bi mhm. c'est ça exactement donc mhm. euh, ñu masawu képp koo xam ne rek réfugié nga à travers le monde entier té ñu témoigner notre solidarité parce que c'est pas évident jóge sa dëkk dem wàllu yaa ni tey foofu fa démé do am sanc manam lañu def ay tante lañu defal ak toile ni ngay tumuraanke lolu c'est pas c'est vraiment pas la, meilleure chose. merci Abdel. Ouais. Merci.

defaru pour que à l'avenir yenn situation yi euh, nga bañ ci mën a demaat mhm. éviter aussi ñi nga xamante ne li nga xamante ne dal na euh, yenn ñi ci yenn situation yi mu bañ la dal ndax Sénégal ak ñaanu ñu yàlla ñu toll foo xamante ne nii tey jii nii dinañ am suñu ay doomu réew di wàlli yaan non yi feneen yàlla na ci yàlla musal voilà donc euh, mu nekk loo hmm. xamante ne nii voilà mu ngi noonu te bëri na également lu ñu koy gis jamono ji te vraiment man image yi dafa dafa dafa metti sama xol c'est écœurant li nga mhm. ca Palestine Congo mm-hmm. euh, Congo bi tamit on des images yoo xamante ne nii vraiment euh, dañuy ñaan yàlla rek euh, mu nekk loo xamante ne nii dafay dakk ku nekk des fi nga xamante ne fa nga juddoo fa nga bokk fa nga miin fa nga xam donc ñëpp ñoo xam ne itamit jot nañ génn seeni ay réew ci anam yu leen gënalul yàlla na yàlla suñu borom taxaw bu baax a baax merci beaucoup mm-hmm. Abdel mm-hmm. li nga xam ne éphéméride dafay ñëwaat suba incha allah donc dañuy euh, continuer rek cette fois-ci nag xam ngeen ñi gën a yaatal waxtaan bi gën a mën a togg na a mën a defar waxtaanee li nga xamante ne ni moom moo xew ci dëkk bi. li ngeen mhm. gën a bëgg li nga xamante ne seen xarit Ndeye Fatou Latyfa loolu la gën a bëgg itamit Queen mhm. loolan la. <laughs> people. <laughs> loolan la dégguma la bu baax waxaatal people bi. people. ay ca dinaa la wax li tey people. <laughs> non loolu ko bëgg. Ah, non tey dañ koy séddoo. ñëpp ko bëgg. dañoo bëgg kaa yéen xale yi dañu topp kaa te xam nga dafa mu nekk nii euh, des fois moom comme euh, weekend bi tamit gis nañ ci ay gis nañ fi mariage. Mm-hmm. waaw gis nañ fi mariage deux mariage sax. Mm-hmm. waaw benn bi euh, mu nekk Maman Diallo. Maman Diallo Maman Diallo. TV moom moom dañ ko doon maye.

ñu gën koo ràññee ci ci Babel mm-hmm. moom aussi tamit euh, génn na ci rang célibataire yi mm-hmm. boo paree nga dem konko mm-hmm. yéeg non <laughs> déedéet génn ci génn ci <laughs> rang célibataire yi dinañu waxtaane boobu tamit ba keneen après ma konk waa ba pare dinañu waxtaane aussi tamit euh, loo xam ne tamit xew na ci fan yi ñu génn mhm. muy euh, benn nouvelle bu triste muy kooku di euh, Toumani jabate nekk dëkk fële ca Bamako mhm. nekk ku ñu ràññewul lool lool lool aussi tamit ci euh, musique ki def ci meew def ci jur ko non dañ koy jur ñu ñëpp ki ko dafa ñuy benn déggoo lu ma la damay ah. def li genre kii lay xool ko damay jël lu ma la dama la ne déggoo ma la gis nañ fi mariage Euh, Mama Diallo. Mhm. mariage yu Jojo. Mhm. ñëw tamit ci euh, kii di euh, Toumani Jabate. Mhm. te loolu yëpp xam nga dama koy zirik. man duma duma kii dama koy mayonnaise ku nekk cap. voilà mm. waaye sànq am na li nga waxoon de. nee nga suñu yaay penda moom du ko jurique da koy jël rek. def ko penda moom moom moom da koy baxal moom du ko. Mm-hmm. mayonnaise moom da nga jékki gis ko mu toog yor di ree. Mm-hmm. maanaam mbéy panache nag suñu yaay tamit. Mm-hmm. na mayonnaise ñuy capp ñun tamit bu ko baxal moom kese <laughs> di ko di ko lekk ñun tamit dañ ciy soxla voilà ñu gis. Euh, hmm? mayonnaise alkaay yi mayonnaise alkaay yi waa kaay mari moom mayonnaise damay suis ci maman ci maman maman madame wa, ci maman madame suis vraiment wax je ménage mom aussi ak euh, monsieur ñu un vraiment ñu gis euh, mu euh, soft

très belle. Mhm. Voilà, très belle. Mhm. Bon, voilà, donc nous euh, souhaitons un ménage. Voilà, Abdel. Toutes les femmes sont belles, surtout bonnes jour mariage. Les femmes sont non, jour mariage, que mhm. quel est le secret oh. des femmes sénégalaises le jour mariage? bizarrement. Non mais non mais c'est non le Voilà. parce que xaru tabaski ak xar boo jën nii rek euh, différence bi muy mel voilà jour mm-hmm. sa jour takk dafa mel suñu borom dafa am benn dafa am lu mu lay moo tax ñu sa ñu naan euh, bambara yi bu ñu sëyi jee mm-hmm. ñoom dañuy muur seen kanam balaa ñuy jël seen taay voilà donc voilà dafa am loo xam ne suñu borom da nga koy mm-hmm. am nga man mi tey jii suñu ma yóbbu woon capp cappal ma affaire yooyu ñëw keneen lay nekk c'est le jour ah, faa ngeen di gis voilà kii Latifa loolu dëgg la parce que xam nga mhm. ñun femme dañu tàmm euh, di solu di maquillé wu. tout temps ndax nag dañu bëgg suñu bopp macha allah. Mhm. mais n'empêche loo solu solu solu. sañse mhm. sañse balaa sa mariage boo ñëwee day am benn peps benn plus boo xam ne day mel ni mosoo solu ci kanam. c'est exact c'est ça loo xam te ne ni euh, dafay rafet dangay danga da nga day wane ni yow yaay borom bés bi. forcément. en tout cas, ménage à elle. voilà. Après, mm-hmm. ménage aussi à Jojo. voilà. Euh, euh, euh, Abdel aussi nous def ñuy wax aussi. Mm-hmm. vraiment. Euh, si que Diabaté. voilà nouvelle mm-hmm. triste. mais oui voilà bon en fait pas mm. génération nouvelle génération bi xamuñu mais ñun au moins doom ji lañ xam mais ñun au moins voilà doom jee tax ñu xam ko en fait am na lu ñu xam ci moom yàgg naa bégal voilà yàgg naa euh, bégal ki c'est un grand musicien vraiment mm-hmm. kooku aussi tamit euh, ñu ngi koy euh, ñu ngi mm. aussi monument c'était un monument. légende de la musique malienne également mm-hmm. euh, Bamako aussi tam koy bu mm-hmm. a baaxa euh, Mia. Mm-hmm. def euh, conférence de presse ah voilà euh, pour def conférence de presse voilà. pour euh, pour lancer album parce que bon ñi ngi ah gis bah né ay ki donc ah bah ah, la doon def ay single donc dong la doon génne donc voilà c'est le moment mhm. mu génne euh, album bi su ko defee ñu gëna ki enjoy enjoy <laughs> gën a waaw moom ne moom dafa tàmmal yoo xam man gën dem fecc ko fecc man xam mm-hmm. man man sama tànk daa oyof waaw waaw té bëgg naa man té fu ma demee

te xam naa ne certainement dina am leneen loo xam ne surprise yi nekk ci biir loo xam ne waaw album moom du ñu génne lépp ok dañuy dañuy nit ñi rek ñamal léegi nag bu ñu demee ba album bi ñëw si ngay découvrir yoo xam ne waaw tu vas ma neex dina ma bu ñuy xëy matin par exemple bu ñuy ñëw ak euh, auto mhm. ñu teg ko ci biir auto bi di déglu di enjoy li nga xam ne mooy la voix de Mia mhm. elle a une belle voix des am na nu muy sax nga dem gaare ci benn koy taxaw tëb fait du gàtt <laughs> <laughs> parce mhm. mais nag moom moom ay musique am dafay joxe ambiance parce que ba mu euh, grand euh, retour bu mag ba mu defaatoon ci musique gis ngeen déjà dafa ñëw jël ñu ci émotion ñep ñëpp euh, mhm. apprécier musique bop mu dooree bu soft bu douce boo xam ne mën nga mhm. ko déglu partout mu may ñu bañu ñu doyal nag mën nañu kaay leen ma tangal seen yaram jox leen ngeen fecc jox leen ngeen ambiance andi ñu ay it yo xamante ne voilà c'est rythmé ba paré fi ko dooree la xam dafa dooree ci idde ñep commencer la tristesse affaire sedd mu jékki-jékki mm-hmm. commencé nak ambiance di gëna dem xam nga voilà ay long continent long long continent bo mo daf maa neex mm-hmm. ay long dama long continent ay long continent mm-hmm. xam nga voilà mu mu nek ay ay ay ay son yu. yu mhm. neex aussi yo xamné ne. bon mhm. ambiance la da ngay fecc. Mhm. récemment également featuring bi mu def ak euh, artiste euh, bi nga xamante ni gis nañ ko lu bëri. ci euh, yenn plateforme yi mu nek loo xamante ne nii dafay wane benn ouverture. bu mu am parce que xam Sénégal lu ñu doon yag reprocher ci musique moy que ni ñun fi rek lañ ko yamalé mais tay ji mi ngi def ay featuring hein, surtout ci fi ci Afrique. lo xamante ni nii jéggaanewul. ñu xam ko ci lu bëri donc réseau bi di TikTok boo fa demee da ngay gis ñu mhm. reprendre mhm. benn partie boo xamante ne moo ko def featuring ak beneen artiste mu nekk à féliciter loo mhm. xamante ne du ñu def lu dul encourager ko di xaar nag di xaar album bi bu baax a baax si si mais man tamit bon j'aurais bien nommé aussi ñoom fii artistes yi fii ñu def ñoom it entre eux ay duo. mais oui voilà parce que loolu mooy gën a. am na sax ah mais ah, bon. si si mi ngi am mi ngi am mais ah. comme tey jii ñoom ñuy dem di def.

tontu rek lay ah. def. kooku dama ah. ko dugg dugg moom day topp kaa moom day topp kaa tontu rek lay def boo matee benn boo ba wër la ah. a jubale ñoom ñaar. Ah, Abdel waa acca vas-y. xale yi tax quoi njaboot gee tax njaboot gi mais Abdel. Hmm, njaboot gi comme ni Viviane ak Bouba loolu man bëgg a jubale rek ñu comme ça eh, njaboot kii day ñëw imaam toogaayu imaam la toog ci plateau bi mais man toogaayu kii laay toog acteur culturel ah, toogaayu ah, ah. reste ci musique bi bon comme ni nga ko aussi mënta ñàkk c'est leur vie te quand boo xasee ba nekk célébrité tey ji mm-hmm. moomatoo sa bopp à cent pour cent nit ñi force mu neex la wala mu neex la mm-hmm. dinañu wax jëmale ko si mm-hmm. euh, sa nekkin tout simplement sauf que pour ne pas en abuser parfois moom la ñuy mooy dem ba xamadi wax nit ki loo ko warta wax ak kiiwee moom. te bokk na sax nag ci li lay jaay ndax nag la lay woo da da amaana dina am benn côté boo xam ne du la neex. négatif la waaw mais c'est ta c'est un choix yoo xam te sa carrière la mais aussi bokk na ci li lay jaay. bokk na ci li euh, wane ni sa présence yaa ngi ci biir euh, milieu bi. yow mhm. tamit dañ ci nekk ak sa yeneen mais ñoom en fait ñoom ñoom dañ leen di yàq. Mhm. mais ngi leen di a i buzz. parce que très souvent bu ñu waxee ci kenn nit tuuti rek day profité génne benn benn benn benn clip wala dara pour amaale loo xam te ne da koy booster mu jógaale dem ak moom ainsi de suite voilà ay artistes lañu ci kaawu ndaxte te macha allah moom tamit single am boobu ça cartonné vraiment mu nekk lu neex tamit très bien merci Queen lan moo ci dopp voilà li nga xamante ni moom nga doon wax léegi mooy artiste bu mag la woon ndaanaan bu mag la woon comme ci daanaan yi Toumani Diabaté waaw bien sûr Euh, mu nekk koo xamante ne ni peut-être Sénégal bu ñu ko gënee xam bokk na ci euh, dikki jabaate mm-hmm. ñëw Sénégal ñëwati fi bokk sax nag ci ci ci Sénégal ndax nag lu xew la ci wàllu musique lu ci mm-hmm. gën a bëri bu ñëw tamit dina yónnee wala mu def benn vidéo boo xamante ne ni mu ngi def mu ngi soutenir suñu artistes yi donc mu nekk des lien yoo xamante ne ni ak des relation yoo xam ne am nañ ko te ay ñoom ñëpp ñoo ko bokk ndax jeunes yi ñoo ko bokk ñoo bokk musique bi li nga xamante ne ni moom moo am ñu mm. koy jaale di jaalew euh, waa Mali yëpp ak mm-hmm. malien yi nga xamante ne ni jot nañu liggéey ak moom mhm. également gis nañ suñu ndaanaan yu bëri jot ni tamit euh, ba montré li nga xamante ne moom mooy seen euh, en mhm. tout cas yëg-yëg ci li nga mhm. xamante ne ni euh, yëg nañ ko donc àdduna moo ni mel monument moom bu xasee ba dem nag faaw mu bàyyi yu ni mel donc nit ñi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax wante yi tamit xam nga bu ñu wax ci ndaanaan faaw ñu waxaat ci beneen daanaan mhm. daanaan bu nekk suñu réew fii nii mhm. ndax nag euh, ki ñuy wax nii di ko noppee wax léegi nii euh, booy xool niveau dimension bi muy bi mu bi mu doon liggéeyee ci wàllu musique bokkoon na tey ci artiste Sénégal yoo xam te ne mën nañ ak mën nañ dañ koy accompagner wala mën nañ woy li muy def comme mhm. instrument muy la diva Coumba Gawlo Seck parce que tey bu ñuy xool ci tradition bu ñuy xool ci originalité bu ñuy xool ci mën instrument boo ko jox macha allah macha allah exact donc yu bëri euh, ñu bëri roy nañ ci moom ci wàllu cosaan ci wàllu lépp loo xamante ne ni day tënk mhm. ëmb ci wàllu musique mhm. mu nekk euh, loo xamante ne ni lu ñu rafetlu la mu nekk mhm. une diva comme une diva rek man mënu mënu ma wax diva moom dara voilà mënu diva mu nekk festival bi nga xamante ne ni ñu koy xaar waaw ñu ngi wax ci musique africaine ñu daal di des rek ci li nga xam ne mooy musique africaine ak festival bi nga xamné ne Ferry Gola euh, waykat bu mag bobulé dëkk fële ci RDC moko ko daal di amal Festigola festival bo xamné rek euh, ça se passera du 3 au 4 août. Mhm. fële ci Kinshasa. mu nek euh, ben occasion de rencontre bo xamné artiste artistes yu mag daañu fa dajé mom mhm. mo leen daal invité Ferry Gola mi nga xamné ne siiw bu baax baax. Euh, ci euh, wàllu musique rumba congolaise évidemment donc euh, mu nekk une invitation boo xam de daf ko lancé mhm. boole ko artistes yu principalement Kumba Gawlo ca la mhm. bokk ci le festival daana dina ci teew te rek wane ci boppam bu baax représenter li nga la culture sénégalaise daal di koy mhm. boole ak les autres cultures mu nekk brassage xam nga festival ku nekk des indi sa uh-huh. influence mu daal di jur loo public bi ñoo ci bénéficier wu dina ñam cu ñoom caa ñoom carara voilà su boobaa rek day day gën a neex mm-hmm. day jax

bien sûr bien sûr kon nag ñëwul ci ñu parce que en fait dañoo wane mbëggeel gu ñu am ci seeni i wayjur ku ci mhm, nekk ci benn mhm, réaction boo mhm, xam ne gis nañ ko temps yi ci euh, kii ci plateau télé kii ci benn inauguration waaw xam nga Sénégal euh, boo nekkee jigéen nekk jigéen bu fës par très souvent dafay metti te femmes yooyu noonu yëpp dafa am fu ñu xool dafa am lu leen di dooleel te day revenir rek ci seen ay wayjur Mm-hmm. ndax nag ginnaaw artistes yu ñu doon ginnaaw femme d'affaires yu ñu doon am na benn jaar-jaar boo xamante ni am nañ ko te mm-hmm. fu ñu toll da leen di marqué te ñu ko mm-hmm. fàttaliku lu ci mel ni Aïda Samb mhm. moom yàgg na ko di ko fësal mhm. nit la koo xamante ne ni tey jii ni euh, cër bu mu am ci ay waajuram mhm. ak euh, cofeel bi ak fu mu leen di toll du wax ñaari baat rek te ay rongoñam tuuruwu ci surtout maam ji aussi voilà surtout maam ji également gis nañ bi muy def inauguration woote ñëpp mënoon na des rek ci ambiance des ci euh, nit ñi invité yi mais doo ko tey parce loo xamante ne la c'est naturel non non mais c'est naturel mënoo ci dara mënoo ci dara voilà maam Ndiaye Savon itamit gis nañ ko mu nekk femme boo xamante ne nii dañ doon faral di wax bu ko kenn invité ndax lii ko invité lu mu war a wax wax na ko ba pare mais lii mooy wane ne rek def leen très attention ci mm-hmm. nit ñi ci nit ñi voilà parce que nit lu mu la bëgg a won mm-hmm. rek la lay won mm-hmm. li mu bëgg nga xam ci yow lan te nit loo ko xam-xam a ko xam à 100 pour cent xanaa ne da nga gis koo xam ne foo ko fekk day kaf di réeñ di mais kooku boo toogee ba mu expliqué la fu mu jaar da nga koy yërëm Euh, à chaque fois mm. mhm. pour cacher carapace douleur carapace voilà voilà donc mhm. donc dañu euh, comprendre la personne mhm. Malheureusement. voilà, nous essayons de comprendre la, personne. Qu'est-ce qui se cache derrière, mm-hmm. c'est ça. Nous, Nous, en fait, nous Le factuel, regarde, le fait, tout de Nous, nous euh, juger. à chaque fois, des fois, nous technique. mais man da voilà pourtant man classé mm-hmm. ni mm-hmm. avant de juger la

ci juste seen apparence ni sans sans mhm. autant connaître la personne juste aussi ñu fàttali ko benn affaire en fait nit dafay évoluer mhm. nit avec le temps da ngay changer mhm. nit ki nga xamoon démb ak barke démb mën na nekk nit bi toog tey si si mën nga xam ci démb nit ku ku metti ku soxor wala ku dëgër bopp avec le temps avec expérience pour moi, am avec jaar-jaar mm-hmm. tey jii nii mu modélé waat ko ci benen façon mu am benen jikko même si am na loo xamante ni ci nit ki rek lay dess ci inné du dañ ainsi de suite mais nit ki ak jaar-jaar yu muy am daf ko yokk xel yokk ko mm-hmm. maturité wala aussi parfois malheureusement da koy dévier mu nekk jël beneen yoon boo xamante ne nii yaakaaroo wuñ ko woon ci moom mhm. donc loolu nit ñi duñ ko tenir en compte parce que nit da ngay xam ni démb ak barki démb nga mhm. jugé ko parce que yéen bokkoon naa nga wala yéen dëkkoon néeg mhm. li nga xam ci moom cinq ans plus tard dix ans plus tard am na lu mu jot a dund loo xam ne yow fekkewu ko yaa ngi doon dund leneen nga bëgg a jëlaat même li nga xamoon ci moom bëgg ko actualiser bésu tey gii nii donc c'est loo xamante ne ni nit ñi ci bàyyi xel ki tax ñu naan nit ki mënoo ko xam à cent pour cent li nga xamoon démb ak ki ngay xam tey mën na am mhm. benn différence bi mhm. dafa fekk ne nag nekk célébrité dafa yombul nekk artiste yombul mhm. nekk personne lambda rek ci kër wala ci koñ yombul donc ñu dem ci ak modération <laughs> <laughs> voilà c'était juste pour permettre ñu def benn en tout cas euh, fermeture bu bu bu bu gaaw ci li nga xamante ne tey moom andi comme people xam naa ni nag lépp xajul ci li duuf ci ci ci nag bi xajul ci cin bi ndax nag liñ ci war a mën a ko doon togg ñuy dóor rek nañ ñuy te tey te andi kii bi de nu mu tudd njëttu njëttu njëttu bi dama ko fàttal ak sama yaay <laughs> voilà tur bi nu mu kii non tey dañoo yaru njëttu njëttu bi duñu ah, dal dañoo yaru non tey duñu dal dañoo respecté tey dañoo yaru en tout ma bàyyi la nga profité rek daal di tàggatoo très rapidement voilà Mariama Abdel mhm. comme ni ma koy xee saa su nekk mhm. yéen moom mbégte laay mbégte laay àndal toog ak yenn ni di pelloo mhm. ndax li moom mooy pelloo mhm. voilà euh, donc euh, di euh, tàggu suñu mbokk téléspectateurs yi nekkoon ak ñun diñu suivre ndax xam naa ne yéen seen chaîne bi moom yéen koy bégee donc ñu ngi leen di jox dig daje demain jeudi incha allah à la mhm. même heure ak suñu

Euh, man sama tàggoo dama koy jagle rek euh, waajur yi nga xam ne mm. mooy waajur yi euh, ñàkk seen doom ci fële ca caaro yi mm-hmm. ndaxte xale yooyu nekk ñu doon wër maanaam altine ak talaata diggante altine ak talaata ñu daal leen gis ci oto ñu daal di faatu ñoom ñett ñëpp mm-hmm. d'ailleurs enquête bi mu ngi en cours ak mm-hmm. gendarmerie kon certainement Euh, xëy na dañ ci am ay firnde yu leer. ci mhm. euh, waxtu yi ñëw en tout cas li nga xam ne rek moom mooy jara euh, fàttali mooy da bàyyi xel yi ci xale yi naam dañ leen yónni woon yóbbu li nga xam ne mooy ñam ci seen tànt waaye nag da bàyyi xel ci xale yi. bu baax a mhm. baax c'est vrai mhm. que àdduna moom da ngay sabablu rek yàlla mu may mëtal lépp mais en tout cas daal ñu ngi masawu bu baax a baax. seen waajur yi lii jur waa kay. donc mu ngi noonu di masawu Sénégal yëpp ndaxte Sénégal yëpp yëg. boobu leen naqar ah car macha allah. voilà je connais que tàggoo rek. Euh, tàggoo budul Tago. Wa ba suba inshallah. très bonne journée à tous les téléspectateurs. Hein, à demain merci beaucoup merci également à toute l'équipe technique ak ñi nga xamantene ñu fi teewoon di remercier le doyen Diop. di leen jox dig dajé dama inshallah ci benen numéro Go Matinal.